aca mamu sidan yahundangan ndangaan yaxu moom lan jakarlo mamu mënu woon gannaaw borom ñoojoor ñi bëgg wa ñojor di bëgg wa ndangan sambu Ya tey moko indi ak 15 ndangan ak ndig mama waye mamu Cheikh Tidiane Niang andi ninki nang ka fataw kor fatu ñi bëgg wa ñojor di bëgg wa ndangan sambu waa commune Fimela bëggee nañ leen bëggee waa Thion Palmarin Jifeer yaxu Mamou Sidaan yaxu mënu woon gannaaw attention Mamou Sidaan yaxu Ndangaan ñaari ndaanaan lañ de ay phénomène lan combat bi day neex ñaari ndaanaanu bërekat lan Yaxu ndeysaan moom li mu bëri ci saison bi ren bëriwul Yaxu jël na tànk ma musi daan Yaxu jël na tànk ma musi daan attention attention éé mamu génn na ca mamu si daan waraat na Yaxu ndaba benaan si mamu daan na ko mamu daan na Yaxu kàttan bi am na